lu am solo ndax mm-hmm. dama la dégg mm-hmm. ngay wax diggante kóolute kon ci ñaari nit mm-hmm. ak waraate yu bari yi ak jamono ji nga xamante ne foofu la ñu toll nii mooy li nga doon lim jàkka yu bëri yi te ñu jikko yi ndax kon oustaz mën nañoo jàpp ne ñun dañoo toll ci axiru zaman waaw yent bi ko ndax waraate gi bëri na bu ne sa yaata ala naas mooy ne dana na uh-huh. yent bi ne dana ñëwi lii dana feeñ gis koo xam ne day yiw pour bu waxee ci yàlla solo solo. Hmm. nga ne desaan kii day surtout El Hadj Malick wala sëñ Sëñ Tuubaa la. Ah. non dëkk fu baax taxul nga baax. Hmm. ku baax julloo taxul nga baax. Hmm. xam ku baax taxul nga baax. baax jikko la mais du ay yëre bi maanaam yonent bi wax ne woon na jamono yi dana xew mooy wor wor yi. ndax nit ñi. trompé doomu aadama yi. di wane islam mais c'est un faux doo ko doo ko appliqué. wallaay mun a lu xam ko waral. ci feebar bi la yooyu la yooyu feeñ. mu développé nag yi xam ne dina ñëw nag. waaye oustaz ki nga jàpp sa nit la jàpp sa xarit la dénk ko sa biir dénk ko sa biti nga xëy sa àdduna yëpp nekk ci àll bi nag ci loo séntuwul woon. waaw xam nga li war a naan nit lu lislaam wax ci moom. nga waxaatal nga ne. nit ki nga xam ne da nga koo jàppee sa nit. jàppee ko sa lépp lu yandu ci yow fanaan ci moom doo ko nëbb sa dara jàppee nga ko sa lépp daal te loolu dafa bëri ci jamono jii ñuy dund nam koor ay xaritoo yoo xamante ne loolu moo koy yàq ay diggante nit ay mbokk yoo xam ne worante moo ko yàq. Mm-hmm. koo xam ne yow dénk nga ko sa lépp nga xëy rek benn bis sa àdduna yépp nekk ci biti kooku laa bëgg xam man. l'islam yan daan la teg ci kawam. kooku dafa yor ñaari jikko. Mm. benn bi amut ndax jullit la waaye naa naafeq la rambaaj la. dëgg la. fenkat la. fenkat original. yonent bi ne yonent ba toog ne salaamaaleykum. moom yeexul ba wala toog ne salaamaaleykum ñëpp toog mu ne aleykum bi siddiqi fa inna sidqa ma mu ne wal birru yahdi ila al jannati e saaba yi ak sénégalais yi mm. yente bay wax de yent bu wax saan saabi ñun lay wax am temps mm-hmm. ndax waxtaan wi day dem ba illa yawmal qiyaam mu ne aleykum aleykum war na ci yéen bi sidqi ngeen dëggu mm-hmm. bu ngeen dëggoo ci wax ak jëf mu ngeen bu ngeen ko boole ko jaamu yàlla mm-hmm. mu ne su ngeen ko noppiwul te lekk lu lew te bañ laaj lekk lu salte mooy riba mu ne yéen nga yoonu àjjana mu nekk wa iyaakum maa ngi leen di éviter loo. Mhm. alkasi bu fen wal xayaanat ak wor trahison. mu ne fa innal kasi bi ni ko fen ak trahison mu ne yax di dalee orienté ilal fa jóoru ci ay mauvaise idée ay xalaat yu bon. Mhm. xalaat bon liggéey nit yéen nit lu bon mbaa nga jaay ko mu yëpp mu nag fekkte wa fi qulubihim maradun. ak rafet nii. Ah. mais intérieurement il mauvais. te doo ko xam de. doo ko xam mu ne soo tuubut mën na nëbb seen jikko mu ne mu ne il faut jur yaa ngi jëm jahannama. waaw mhm. ah, eh lu tax yàlla ne safar dana fees dell ba ma rakkos ay doj doju liberté yi. Mm. yu liberté sis. waaw. aywa yooyu baax na de yàlla xamul ko la yi nga xam ne tojaguñ ko xamul ko tooral yàlla dara dafa tuutul moo tax mu ne liberté sis. Mhm. tax mu ne parce que nit ñi yoonu àjjana dañ ko dévier. Mhm. ndax jikko yu bon. xool yonent bi ne nag ki nga gën a wóolu moo lay war yonent bi ko wax de. Mhm. ndax ba mu waxee ah. dem leen ñam wóolu ñu bëri demuñu wala peut-être am lu tax demuñu ndax xale bi ñu namee xale bi ñu namee non yon yàlla moo ne ko rasulullah link solution bi nga bëgg gone gi la. Mhm. ñu contesté ko. Mhm. mu ne lii jaaxaluma ndax bàyyam bi ma ko nomee da ngeen ko contesté. Ah. kon bu ma waxee doomam da ngeen contesté. bi maanaam kon nit mën nañ ko jox cër am ko naan eh, félicitation fekk xol baa ngay dagg. léegi képp ku am jikkoy fenkat bu la wóoloo boo la boo la hmm. soo ko violé boo bi maanaam boo ko tasaaree hmm. yow rey nga ko jaay nga ko ba pare utal nga ko noonu te amul noonu wallaahi ndax dala wóorulum hmm. loolu moo tax ñu ne ab jullit piir du fen du wor rambaaj moom yonte bi nee na ñett ñii dem safara yàlla ñu ci almusal kan ak kan yéeféer yéeféer naafeq naafeq rambaaj rambaaj ah. fenkat original nee na yii ñeent yonte bi nee na xamul tax mun yéeféer dafa wedd yàlla dafa wedd yàlla. ñu ne naa fekk day julli di woor di aj màkk def lépp fekkata lu mu xam ci yow yóbbu ko fële. ñu ne fenkat moom lu mu wax fen ca mbaa mu dem di la fenal. Hmm. rambaaj nag mooy day jaxase ba pare taxaw na ci na du moom fekkat moo taal dëkk bi. dégg nga lii. lu ñu yoon tamit nag ñii nag bu ñu tuubul safara lañ jëm. Hmm. kon képp ku julli mbaa ngay woor te jikko bi ci yow jaru ngay woor jaru nga julli il faut dire la vérité bëri koy faraan ci jàkk ci ji fii ak mi ci yow yoon tamit nag demal nga toog inna salaata tanha ani fasal walil munkar nee na julli mënut a baax fekk sa jikko baaxut c'est impossible. kon bala nga julli xoolal sa bopp nit day régler boppam ndax yére bu tëlimee balaa nga ko solaat mu rafet da nga koy vote mbaa nga passé ko. dëgg la mais pourquoi nit ñu defati jikko nag yenn ciy jàkk ci. yaa nga Tuubaa yaa nga Tiwaawan yaa nga fu ne yaa nga fa. te sa xol bi baaxul sa jikko baaxul jaru nga fay dem ñoom ka ka fa moom bis ba soxlawul fa. jërëjëf. jërëjëf li nga wax nii nag. lu mat a daggate la dugal TikTok. moo lii moo tax ma ne. lii moo jara TikTok nag. lii tax ma ne moo tax ma ne. Touba Seydina max di Cheikh na Cheikh Saad bu mm. Ndiassane xayru turuq yëpp su ma sañoon jaamur yàlla yi ñoo fa ne ci kër ga duma leen a dàq leen de. Mm. waaye jël leen seen jarbaat seen doom ñu jege leen. ñenn yugur ñu bëri ñoo jaay ñoo leen di jaay. espionnage lañ ba pare et puis lu ne lu ne lu ne capable nañ ko. il faut faire attention. xam nga ko waral Rasulullah ba mu jaaxle ba mu jaaxle ay mbokk boppam ñoo ko denc xool ñoo ko jege ay mbokki boppam ñoo ko sang. Mhm. benn jaamur fekk fekkewu ko. Mhm. loolu ci histoire la. yàlla yaa dafa sunu xol yi. amiin yaa rabbal aalamiin nit ñi leen dem euh, jërëjëf leeral bi am na solo ah, waaye am na keneen ku am benn laaj bu mu euh, Moussa Lamine nee na question quels sont les bienfaits de jeûner trois jours dans les mois lunaires euh, mooy oustaz laaj bi ñu la laajoon euh, démb maanaam weer euh, ñetti fan yi nga yi ñu dégle ci weeru lislaam maanaam ci weeru wolof lan moo lan mooy ngëneelu di di ci woor ñetti fan yi mooy fukki fan ak ñett fukki fan ak ñeent ci weer bi wala fukki fan ak juróom lan mooy ngëneel yi ci nekk ngëneel yi ci nekk gudd fan la bàkkar boo yëgut yàlla faxasal la ko Uh-huh. yàlla jëlal bonus boo xam ne bi du tiyaaba mais ngën a la xam na tubaab bi mooy def ay point sargal point whatsapp uh-huh. ay bonus akatuma yàlla yooyu nag dara jaar yooyu nag la yàlla gàddal ëllëg yomal xiyaam uh-huh. defal la ko nag li ci ëpp solo sax nee nañu mooy li li la topp te gisoo ko mu yàlla fa xasako moo tax koor yooyu moo baax ndax yont bi sallallahu alayhi wa sallam da ko taamoon di ko def macha allah d' kon nag jërëjëf dee leen ko jërëjëf euh, yaa Seydi alors ñu dem ci beneen euh, question euh, dimbali leen ma ci. man de am naa ci benn en attendant. ayca dugalal dugalal ma xoolaat yeneen ayca glissé question pour ñun suñu mbokku jigéen ñi dañ ciy gis ñoo xamante ne maanaam weeru koor bu jotee daa ñu woor waaye bor yaa ñuy am ci weeru koor bi duñ ko fay te bu weer wa jotee ñu àndaat ak moom woor ndax boobu koor nangu na. waa léegi ñu waxtaan démb nag dañ kii dañ nekk ci weeru so soobaan. yow. weer wi bu nit sàggan bañ a fay bor soo weer wi demee ba ko dugg te fay xam xa xaw si dugg moom soo amaan wees na la. bàkkaar bu rëy mun la weesu ndax da nga négligé. ndax yonent yàlla Muhammad nee na boo demee Màkka. nga def tamatu tamatu mooy bon boo tawaafee def sawak mara. Mhm. da nga war a ñëw su ma si yére sol sa yére sénégalaise. Mhm. da nga fay war ñetti fan. maa mhm. nga rey. ñetti fan yooyu nag fukki fan nga war a woor ñetti fan yi màkkal ma moo ñibbi Sénégal nga fay juróom-ñaari fan yi doo ko fay nag brusquement. Mhm. da ngay xool da ngay xool balaa soobaan dugg si nii ñu ngi ci xam nga ñu ngi ci weeru soobaan. Mhm. kon képp ku am bor weer wi nga koy fay. Mhm. soo ko war a fay te ko yaan dali def daan mooy bàkkaar la bi maanaam mais soo ko war a fay xam ne da nga am ngàntu feebar da ngay génn muddu koor. nga joxe ko. waaw muddu koor mooy. muddu loo xam ne bii. Euh, li on ko waxati euh, bonus am na ko wax tubaab li li remplacer sa njàkk koor gi. Mhm. bi maanaam boo dee amoo nattukaay. Mhm. da ngay tibb sa loxo ba mu fees nga tey dajale sa loxo yi ba mhm. nga sotti ci benn ndab ba muy ñaar yoon. ceeb wala dugub dugub wala ceeb. waaw mais est-ce que xaas gënu. xaalis bi nag nan lañ koy génne dafa mel am na ku koy laaj. ci commentaire 700 francs. Uh-huh. ñaata 700 francs la doon. 700 bu dee kii par jour dañuy xool non waaw par jour waaw. ok par jour la. d'accord mais bu la wóoree da feebar feebar boo xam ne bi annuel la at mi yëpp la wala weer wi yëpp la danga koy comptabiliser. Mhm. au nga jox ko kenn mën na nekk mais soo xoolee ñaari dëkkandoo yu sonn nga séddale leen ko. Mhm. mais yow say say yéene da nga yàlla di dey yaa ma ko sant def naa ko moom jaru nga koy wax jox ko rek fi sabilillah. Mhm. yàlla xam ne lépp. waaw am na ñoo xam ne nag bu dee tayeef la nag islam ne wooral. ñu ah. bëri nag bu jotee ñu ne naan damaa feebar te xam nga xam nga sa bopp dara jotu la ka feebar a tax. moo tax ñu ne booy tukki bul koor booy tukki la wax. d'accord ndax gë jombut doo àgg. wala mën nga dem paan yoon ci yoon wi te dogu dog passé na wala mi ngi ñëw. nga tumaranke mm. yàlla teggi la ko waaye da ngay fay. Mm-hmm. ok euh, Oustaz euh, soxna ñaa nee na laa jal ko ndax woor euh, woor di dem géej wala lido maanaam dàq koor mm. lan la ci lislaam wax. alam euh, aman euh, euh, islam ni mu wax dafa ne ase afa xasibtum annama xalaqnakum abasan mm-hmm. yàlla dafa ne yonent bi ci alxuraan de ndax bi ma leen tax ba ma leen sàkk man yàlla foo moo taxoon mm-hmm. te lii doo foo la mm-hmm. dem géej te du farata nappi woo doo mbool ak naa damay dàqi koor yow xam nga koor koor weeru weeru sacrifice la révision la révision boobu nga xam nag mooy mooy toogal lu bëri doo doon fooye muñ ko ba weer bi passé ba dul aram nag war nga fa doxee mu jeex tàkk doo ko defati. Mhm. lii du daal tubaab yooyu ñu ko nax seetaan yi koy naxee ay waay waay ana dem dem dem déglu kaamil alxuraan eh, tafsir alxuraan jàkka ja mhm. mhm. sa cours di jàng alxuraan. moo gën et puis boo nekk ci mariage ak lido sam xel dootu ne ci koy noot doo ko déglu ndax iblis mooy fàtt sa xol doo ko déglu. kon kay booy woot juddoo too dafa toll jaru ko man kay mën ngaa toog di lekki naan. Mm-hmm. lislaam daal nee na boo digg ci weer koor weeru sérieux la ndax weeru alxuraan la waxi yàlla la mm-hmm. bàyyi leen pom yi moo xam surtout lido lido moom mi nga tax dëkk bi mm-hmm. lido kay koor gi day jar nañ ko baax ak jàppante gi xuloo nañ ko baax dem di fi ñu jàng tafsir fii alxuraan ngeen déggul waxi yàlla ndax yàlla na ne sama bis la eh maa ngi naafi la mais chaque jour ñu ngi ci affaire yoo xam ne seytaan la <laughs> ña ngay werante politique ña ngay nang nanga nang nañ ko baax Euh, euh, euh, kii Nabou. Hmm. d'accord. mami. naam waaw oto buy daw oto buy daw doo ko wiide fu mu jëm du kuule. day kuule bi maanaam dafay yàqu ci boppam. waaw ah, mooy mooy koor nag. Hmm. xam nga koor mooy dañ na saxru saxru mooy weer. Ramadan mooy doomu tàll ndax këriñ ak bat lu muy jariñ togg saaf baxal. dëgg la bu nee ma jox du nekk doom. Hmm. yàlla nee na ma bëgg lakk seen bàkkaar yi. yu ngeen yëgut ndax année bi li ma ci fen bëri na li ma ci def bëri yàlla ne comme oustaz jaa nga baax. léegi nag weer wi naa ko lakk bam jeex ma def ko dóom mu mu naaw. Mhm. moo tudd Ramadan. moo tudd Ramadan. saw mu na xam lu muy tekki. Mhm. muñ ak noppi. Mm. yàlla xam nga la ko dédicacé. Mm. Mariam mi jur Isa ndax Mariam jigéen la Imraan mooy papaam daal saxoo daan def lay kër gi de bale kër gi togg papam di duglu ndigalam bu par dem ci jàkk ci toog jaamu yàlla. Mhm. est-ce ku noppi da fen. Mm. ku noppi da nga ràmbaaj. déedéet ku noppi da nga juñ. déedéet ku nga lekk lu araam nga muñ ko. Mm-hmm. du xiif. ok moo tax mën ne ko ramadaan. saw mu mooy noppi ak muñ ramadaan mooy doomu taal ñaari baat yi la nit ñu war a leeral lu tax yàlla dédicacé ko jigéen. Mm-hmm. lu tax mu ne bu ngeen defee ndax dafa yàlla ne dama bëgg ngeen yàgg fi. Mm-hmm. moo tax yàlla ne laa tax taqtulu anfusakum bu leen rey seen bopp yàlla ne bu leen rey seen bopp te moo sàkk dee. yàlla ne nekk man yàlla kaana buur laa boo xam ci yi ak ñun ñëpp rahimun ngeen yàgg fi. kon nag oustaz bu ma la jàppee ci résumé loolu mooy ndekete nit kon dina woor ba ngoon jotee kooram yàlla du koy jël aj ko. laay xam nga eh- li tax mu koy aj oustaz. Mhm. sama genre gi nga xam ne bu ñu wooree jàppee rek la ñuy def ci li jàppee. dajale point jàmbur yi ñu ngay xuloo ñu ngay dugg lu suñu yoon nekkul boobu baaxul. bàyyi leen lido bàyyi leen carte. waaw bàyyi leen dugg lu seen yoon nekkul. leen nag mooy sama problème oustaz Diaga ak xeex. waaw am na ñoo xam ne dinañu mer dinañu xuloo ci eh, oto surtout oto yi eh, nag. Eh, transport en commun yi taxi yi. xoolal dëgg mami dégg naa sa wax bu ñu demee ba làmb yi sax dañ koy tëj làmb ji dañ koy xam nga làmb foo mhm. lu tax ñu tëj làmb. Mm, dëgg la de. Polo. Polo kay. xeex la. xeex la saagante la. Mm. te weeru koor kenn wartu génn sag bi lu ñaaw te kenn wartu lu naqar kon yàlla nee na. waay waay waay bu la yéen benn weer mën a góorgóorlu leen ci waay bañ a sàggan waaw kon oustaz est ñun weeru koor bi kon duñ ñu ko may ñu bañ a liggéey parce que ñun weeru koor dañuy wax dugul suñu yoon nekkul tamit dañ eh, ba eh, eh, koor amuñu ndox amuñu ndox galaas amuñu anas yi anas yi la ma mm-hmm. bu ñuy gaañu bu ñu ko piqué ba du yëg métti de mm-hmm. weeru koor anesthésie anesthésie mm-hmm. ku dem xare ñu dagg loxom mu mu mu mu mu mu jël loxo ba def ci kaalaam. Mm. di xeex ngir yàlla te mi ngi woor. ñun lu ñu fekk lan moo ñu fekk ñun lan moo ñu fekk. kon lu mën a liggéey wala. amul jamono yu Rasulullah amul courant amut ndox mu sedd amut dara amut. Uh-huh. ñu jël seen bakkan jox ko yàlla ñun lu ñu ci fekk ñu bëgg ñoom ñun bu ñu yërëm rek yàlla la. non jamono jii ñu toll nii. ak euh, jamono internet ak ñoom seen aayee coono. <laughs> Euh, borom mu yéen. dama ma ne. xaama ah, def ko nii. ma ne xaar rek maa ngi ñëw waaw kay jërëjëf Mbaye. <laughs> ayaan ku dégg séeréer dëgg la. oustaz doo toog sama laaj bi dama ne ndax weeru koor mën nañoo ñàkk ba ñu liggéey. ëpp araam na doo mooy oh, oh, da nga ko xam indi xare Badar kay. xare Badar ñi ngi woo dem di xeexi. Mhm. te diggante attention diggante dina ak ak Badar 71 kilomètres la. ah ok 71 kilomètres diggante Badar xoolal ñaata kilomètres la ñu dox ànd ak koor di jël seen bakkan jox ko yàlla tabaraka taala mais booba pas-pas muy ngëm-ngëm la woon. neel benn. Uh-huh. diggante Medina ak Makka doon na takka Tambacounda te 4-4 amul hélico amul dara amul cey Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam xool si xool xool xool Seexu Xadim mu tedd mii. Mm-hmm. xool li mu dox ak li mu daj ngir rek laa ilaha illallah xool Seydi Malick uh-huh. mais ñun buñ ñun. dañoo am ay référence ci islam kon moo tax lenn jaruñu lenn yi lenn jaruñu ko. Mhm. kon daal koor koor daal waaw. ba tey ñu ngi ci koor gi bul tëj. bul tëj de. bul tëj ñu ngi ci koor gi dama fa mel dafa ñor nit ñi. Oustaz man balaa may ñëw sama question mooy woor di parfum wu. woor di laaj naa la di def parfum. waaw xam nga woor di parfum ci bu gàtt rek. ah, mhm. ah woor di parfum. baax na wala baaxul. non parfum mën na nekk tuuti nag. Mhm. tuuti ndax parce que doomu aadama dafa war a set. ndax yàlla dafa set bëgg lu set. yàlla bëgg lu neex bëgg xeet bu neex parfum daal tuut mën ko def xam nga di maa ngi naan na boros ayut ndax boros bi mu yàgg bi mu ñëw yàggu ay aaya alxuraan ba mu ñëw yàgg nag kon soccoo amoon mais nag nag moytu socc bu tooy tooy loolu nga xam ne bii mën nga naanaale. moo tax man ne na socc bi gën gaw mais amatu fi léegi ndax. Mhm. photo ñu foto ko xam. socc bu wow daal baax na nga socc sës sa siiñ. Mhm. kon boros dafa dem nag borosol. Mhm. mais éviter ba boros bi du dugg sa lam du dugg sa put gi. d'accord euh, beneen bi. oustaz xam mhm. ma weer la benn yoon rek sama mag bu góor mm. El Hadj moom yàlla dafa dogal ni oustaz moom du mer bëggul mhm. ay koor ak yooyu il est très gentil macha allah koor maari maa ngi lay nuyu bu baax mais El bu koor jotee mm. sama papa dina kalaame képp ku mu xam pour di ko yedd pour mu bañ a mer moom mhm. koor tàmbali ba ba fin ba day xuloo noo tudd mu mer foo dëkk mu mer yuuxu xale yi bu wàccee yuuxu yem leen loolu. dara daa lislaam dafay digle ngay woor di mer man comprendre. nu mer pour lan la nu mu tudd. El Hadj Koor ñoo bokk ndey ak baay. daa non dara xam ma jikko la. Mm-hmm. daa ragal xiif daa banul de dafa ragal xiif rek. dafa ragal xiif. waaw su ko defee jikko ji day ñëw. Mm. day jikko jikkoy mer gi day ñëw. et moom rek de Sénégal yu bëri fi bu ñu war a ñuy tàng mais am na ñoo xam ne bi et puis attention ñi ci ñi ñi ci ñi ci ree bëriwul de am na koor ah. di nii ñi ko def bëriwul de xanaa ki ko tam ba daanaka mi muy gone ko ndaw mais heure mi ngi sant yàlla ndax comme léegi seet naa Sénégal yi xale yu ndaw yëpp dañuy dem jàkk yi woor su mosuloon am te loolu war na ci ñax suñu doom yi euh, ñu ci boolu julli yëpp dana gën am solo daal uh-huh. war na Sénégal wallaay réew islam la uh-huh. réew jàmm de beneen beneen beneen question rek bii mu tëj sama benn xarit moo ma ko neewoon naa du ma ko wax mais naa ko wax nee na boo wooree nga war a euh, nga ñëw war a war a sekk ak sa soxna ndax koor gi day dog wala mën nga ko def après nga dem. na muy dogee ëpp mais yow dama ne sax non xam nga loolu yabaate la. weeru sell. Hmm. yow soxna si yaa ko moom lew na loo yàkkamti. Hmm. ana guddi gi. wax dëgg yàlla. ba ca képp ba képp ku am xam-xam di la ko wax loo naa feq la. weer yàlla bi dafa weer yiw la. même soxna si bu dawoon ak sax yaa ko bu ko def lenn ne ko man damaa woor yam ca. xamul nooy wooree sa xel. incha imu la yonte ne nee na soo ñëwee nit ñi tappaas sax ko man damaa woor. dëgg dëgg. mooy premier avertissement. dama na du benn hadis du benn sunna bépp nit ko woor sa jege sax war sa jege sax war ko jege ndax lan. dafa am loo xam ne bii seytaane bu jege pour yàqal la. Mhm. weer koor waroo ci fóor sa soxna waroo ànd ak moom. déglu baax li ma de. ci bëccëgu koor gi quoi bëccëg bi la la wax. waaw ah, kay dafa jar dafa la. neen yàlla ne yonent bi respecté yàlla ci ay règlement nañ ko mhm. respecté waaw loolu da mhm. leer na doo ko jege doo ko fën loo xanaa boo fënul ah noo koy laale wax dëgg yàlla waaw yow sëñ bi sax ana guddi ah! Ah, ngeen baal ma dafa am lu may nettali tuuti eh, eh, dafa am lu may nettali hmm. dafa am benn benn benn jigéen boo xam ne jullit la mm-hmm. léegi nag benn waa joo xam ceddoo la mooy jëkkëram mm-hmm. bi mu sëgg ni sa bi mu julli sëgg nii rek mm-hmm. bon mu wan ginnaaw ndaw si bëgg bëgg ko sàkku jabar ji dëkk mbéj ko dóor ko lex bitti la ko tar mu daanu xam nga arab bu mu bu xasee wax ne su mën na ma amet àndate yow ànd ak sama yaay bu ko xasee wax sëy bi dog na moo seen cer mooy ji gi ñu ceddu la soxna si nit ko baax la mu ñëw ci yonent bi ne ko man de yaa rasulaay man de dama am jaaxle sama kër mu lan mu ko dama doon jaamu yàlla bi ma sëggee sama borom kër doxame ginnaaw bëgg maa sàkku ma dóor ko bitu loxo mu ne ma bu dama ant yow ànd nag dax ne ma ah loolu di musiba la ah, moom moom lu la lew lu mu yàkkamti te yaa ngi jaamu yàlla léegi may la mu ne yonent damay laaj loolu luy atteem yonent bi ko nag awaguma ci ndigal ndax booba règlement bi wàccagut ci ci kawam muy dem di ñëwaat di bàggante ba mujj mu ne waaw man. Hmm. xanaa kër Seydina Muhammad amul jigéen. sallallahu alayhi wa sallam soxna Aysi mii nga xam ne bii gannaaw yàlla soxnaan ma te borom hmm. xam-xam ne day jàngale. Hmm. ma dem la ko li ma dal. daañu toog na ko ah soxna si maa ngi jégul de. ñun de bu ñu jaaxle ci Rasulullah day ñëw. may dama mel na dem bi ma nee sama kër sama xel ne waaw xanaa soxna Aysa ñëw ci kër gi. ah kay nekk yaa ngi fi. mun ko noonu say tànk. mun ko daal nettali ko kaa du mënul julli sama borom kër wan ma ginnaaw bëgg maa sàkku ma dóor ko mbéj mu daanu. Mm-hmm. ay seen ko ah loolu de ëpp na. Mm-hmm. mu ne waaye daf ca teg ne nag bu ma demee ànd te yow ànd ak sama yaay. ànd ak ànd yaayam. Mm-hmm. te loolu baaxul ci ci giiru arab. dëgg la ay seen ko ma indi la xalaat mu ne ko ban la. mun ne ko ci julli la fekk mu ne ko waaw mu ne ko bu ëllëg boo demee kër nga ngoon solo yére yu weex tal. deux heures trois heures du matin nga taxaw jàpp ba pare. kàbbar loxo ne yàlla. yàlla dégg na lépp mm. ne yàlla man dama bëgg sama boroom kër mm. mm-hmm. maa moom ba ñu gone ñu ànd lu ne seq nañ ko mm. ba tey moom laa bëgg mm-hmm. te li mu wax nii man bi may jaamu yàlla yow laa doon jaamu yàlla mu def ma lii mm-hmm. te nee na fase na ma te ñun arab ku wax lii rek say say dagg naa ay yàlla yàlla am na solution cookalul nag muy fasewaate na dafa ne yàlla mayal mayal solution Seydina Mohamed fase xol daan na amin waaw ñoom la naari waaw bi mu dëkkee loo xam ne allahuma amin rek dem rek ay ca su ca ay ay wàcc ci yonte bi. ne ko hmm. nag jëkkër ji jëkkër ji moo tooñ jabaram. waaw waaw. est-ce que di solution boobu. ndax dañu ne la sa jëkkër danga nga koo war a topp ci lépp. Ah. ba mu des ci lu ah. neexul. yàlla suñu borom. et loolu sax xam nga loolu ci en fait ceddo li moo tax charia nee na ci leen di ànd seen jëkkër ci ginnaawam. baaxul seen jabar ci ginnaawam. du ñu fi sax. bi ci des. ay solution ba mu ñëwee nag la jigéen ji am am man ah kon nag Adja. Mm. yàgg ngeen am ndam ci islaam ci islam de. maa la wax loolu. almaratu. Mm-hmm. dawrul maratu fi mujtama al islam. Mm-hmm. wa dawrul maratu fi bayti zawjiha. ustaas yéen itam na li ngeen am ci man. ci yàlla kenn amu ko. Mm-hmm. kon yàlla defal leen teraanga mais nag jigéen ci boppam na xam boppam. waaye nag euh, Nabokor. Uh-huh. yow sa mag sa mag yi ngay wax dafa mel ni yow la naan dama ragal ku ma damay mer dafa mel ni <laughs> ragal xiif non non sama xarit bi tontu bi nga ko tontu lii gën a sedd sama xol bi may émission ba tey <laughs> alhamdulilahi rabbil alamin ngeen xam ni woor du kaf ah, bàyyi li koor sa lépp mooy woor te nag mami mais Seynabou lu ñu lu lu oustaz ma ñëw lu xamante ne at atum lëmm hmm. ngay suñu borom laaj la ci benn weer quand même bariwul bariwul ñun soxna yi bariwul ci ñun yow boo ne benn weer sax góor yàlla yi bariwul naan ci loo xamante ne da nga koy tàmbali fajar. Mm-hmm. jàpp 19h 19h30 waaye yow foofu foofu yow lu sa xel waaye yow sa xel newul ci yàlla yow yow yow yow sa xel mi di ne ci yow ci ak ah, ci ci sàkkum tiit bi pour la nan waxante dëkk yooyu yooyu génn leen ci weeru koor bu jotee et jigéen ñi itam nañ ci jàppale seen borom kër yi ci biir kër yi yaa ngi dégg woor tamit sol lu la neex. loolu tamit day yàq koor. Eh. boo war a eh. muur say cër. léegi nag ku la gis xalam du ne. mami nee na ma mami. voilà tontu dama. nee na ma hmm. sama question bi nga laajte. oustaz di ma tontu ba dégg naa ko mais bis boo waxee sama tur dama lay ray <laughs> du ma ko wax wallaahi du ma ko wax waat naa ko ci yàlla. waaye boo insisté dinaa jàllale c'est important parce que am na ñoo xam ne xamuñu ne loolu mais loolu normalement na wax dëgg yàlla mhm. soxlu njàng mu on a besoin di di di préparer di waajal su weeru koor di xam lan lañu ci lan lañu ci digal mhm. ak lan lañu ci tere parce que ñu ci bëri dañuy woor sama genre gi dañuy tëñax tëñaxi rek ñoom daal xam nañ na ci da nga war a xiif sama genre gi da ngay nelaw man journée dama koy tëdd di nelaw rek mu waxtu julli yi daal dinaa ko dinaa ko dinaa ko dinaa ko matale waaye il faut que ñu xam naka lañ war a woori ak naka na lañ nara defee ba tiyaaba yi nga xamante ni suñu borom daf ñu koy baaxee ci weer bi ak xéewal yi ñu mën cee am. xam nga euh, yaa ngi wax lu am solo mooy ne euh, dëkk bu naqare wax la. mais ak a neex mm, man naqare waxee mais dis la vérité man naqare. mais naqare yonent bi dafa jël addu ah, yàlla dafa jël addunaam ne yow yonent bi. Mm-hmm. man yàlla. wa ma xalaqul jinna wal insa illa li yabuduni mhm. yéen ak jinne sàkku leen lu dul ngeen jàmm te bala nga jàng foo nga jàng mhm. léegi jàng bi comme dafa xaw a léegi laaj leen la wax yonent bi nee na xam-xam magasin bu fees dell ak njariñ la mhm. dëgg la mu ne yon yonent bi ne saaba yi waaw da ngeen ma laaj caabi caabi bu koy ubbi ñu ne ko ah yaa ko xam de mun a laaj mooy lii ngi def nii bi maanaa xam-xam magasin la mais caabi ko ubbi mooy laaj fas alu al ahli sikri in kuntum la taalamuuna mm-hmm. eh fasalu laaj leen ahlul zikr ñi ñi am xam-xam te man a xamle mm-hmm. in kuntum doon ko yéen laa taalamu xamu ñu xamal leen mm-hmm. kon bii maanaa li nga def sualo jawaab bii ngeen def question réponse bi mais mooy tax nit ki xa rectifier ko parce que nit ki mën a def naa ay eh, daana baax nekk te baaxut wala mbaa nga xam mais manqué na wala manqué na mais am na détail boo xam ne nga koo baax laaj bii ndax ñi ñu tollatuñ dem ci tableau. Mhm. yii ci njàng la. Mhm. kon bis ni que tey. Mhm. laxdar yu daf leen ko français daf ko anglais ko arab jàng leen ko. lax bu nga ko mokkee bu ngeen gis oustaz jàng pour seen julli yàqu li nga ko réparé yomb na ni ngeen sango set boo sango amul set amoo ko ndox amoo amoo dara ni ngay tiime tiimee doon ko yàngal ak janaaba Omar Ibn Khattab jiite na ci mi nga ba mais dafa jàpp dafa jàpp dafa tiim. ndax boobu jamono joobu bon technologie bi ndox bëriwul woon. te ku ne war nga xëy sangu. moo tax naar yi bëri ndax daaw ñu sangu dañuy tiim. ndax ndox moo xam ne bu ñu lu ñëpp bokk war ci togg war ci wëgg. war ci sangu mais du yomb. comme léegi ndox bi bëri na léegi moo tax ñu ne jàpp jàpp ñett ñett yi yàqu ndox la. sangu bu njëkk benn benn lool sangul ba pare door question bi rek ñu ñu ñu tëj après ñu dem ci euh, sommaire bi Ibrahima Khalil Dione nee na euh, nan la ñuy génnee muuru koor ci xaalis nu ñuy génne mudd wala muuru koor. ci muuru koor muuru koor. muuru mi ngi nekk ci euh, xasabu yow mi woor. Mhm. sa doom. Mhm. sa soxna ak sa mbindaan. Mhm. mais sa doom bi xam ne dafa majeur ba mi ngi liggéey doo ko génnal. yow yaay ah. génn. voilà da ngay natt comme li ngay natt nii. d'accord ni ngay natt mudd koor bi. noonu ko koy nattee. mais si yow yaay jëkkal si génn sa bopp neel benn. benn. sa doom yi ko bi soo ko judd da nga koy ki nga xam ne mineur la. waaw ah, ah, waaw mineur bi kii mhm. xamul dara. Mhm. ak san ñi nga xam ne ndeysaan yaa leen yaa leen yaa leen bon yaa leen fat ci kër gi yaa leen jaboote ci kër gi te ay jarbaat la ñu yëpp te ñu ngi woor. Mhm. te mënuñu génne leen. waaye ki nga xam ne bii tamit ak mbindaan bi xam ne yaa koy liggéeyaloo te di sant amul doole tamit nag julli la comme yow génneel ko. da natt 500 par 700 par nit. waaw wala ah. d' accord. su ko am ñoo xam ne dañ d' accord ci mhm. mhm. xaalis parce que parce que li li génn toll na ci 8000 francs xaalis. Mhm. am ñoo xam ne ko environnement def ko 10 000. bonus la. dëgg la waaw léegi xaalis bi baax na. ceeb bi baax na dugub bi baax na. mais ceeb bi bu quartier bépp joxe ceeb day fees dell da koy mujj jaay. kon jox ko xaalis. ndax xaalis boobu am na yitt boo xam mën na fay location mbaa ordonnance la dëgg la islam daal diine solidarité la. dëgg la jërëjëf oustaz. d'accord jërëjëf jërëjëf euh, dafa mel ni Ndiogou Gaye li nga laaj euh, s'il te plaît bu fekkee mën nga ma liwaat question bi ma mën a comprendre bu baax a baax a baax nee na euh, ndax wóoru wóoru Europe. kooru Europe ma waxee ko noonu ne ndax ëppul point. kooru Europe. waaw ndax liñ leen di fay du ëpp ñun liñ ñuy fay. xam naa ci yéex a dog gi peut-être ça dépend du temps mais bu ngeen di teel a dog moom ñoo leen di ëppale du dëgg. <laughs> waaw xam nga kooru Europe xam nga ni nit ngeen baal mi ñi nekk diaspora boo gisee ñu ëpp ñu tiyaaba dañoo bàyyi seen réew dem ci réew. Hmm. dépasse bu ñu envoyé fii Sénégal. ceeb bu ñu ci jël ngir ñu ñu dundee ca ceeb ba moo xam laax la suukar la wala ceeb la wala neen la. Mhm. benn pepp ceeb bu ne yàlla da koy multiplier ci ñoom. Mm. ndax ci ñoom te ñu bokk ci xeetu jihaad xam nga jihaad jaas ak anwaaru jihaad du benn. Mhm. ki ki ki yow salaire bii nga xam tey euh, nabu. waaw yaa ngaa la jël salaire nga jën jën ci saaku ceeb wàcc ci njël la te li jëpp doo ci lekk. cay mm-hmm. bàq ceeb bi nga ci am. moo tax mën a jullit mille fois mille mën a dem àjjana <laughs> kon kii xam ne dafa yor soxna mm-hmm. iñaane jabaram iñaane doomam tey dimbale jabar jaamur wala jigéenu jaamur yaa ngi al ko de sàmba alar <laughs> ko nag moom bu xamoon bu xamoon doo xamoon yar yi koy fekk ci biir bàmmeel laa du ko def ah waaw mm-hmm. mais soxor mënu ko passé yow ki ne muñal ba nga mën a am salaire muy sagal lu ne mënoon na ko vilpaane mu ne nu ma ko def ndax yàlla mën a sant naa sëy nga jël sa alal di ko jox ay ji keneen koo xam ne bii kook sa wërsëgam la. <laughs> mais jox sa jabar ba pare. wax dëgg yàlla. du dëgg. Uh-huh. yooyu mooy li am solo kon daal euh, kii tukki buy woor na wéeru ca te dëkk ba heure ba ñuy dogee ak bu ñuy wooree. Uh-huh. du dépendre fii ci réew mi bii. Uh-huh. déedéet. souvent damay fara wax ne leen ñi dem màkkatal mu karama nel benn jour tawaaful ifaada mooy jour aj màkk gi. léeg-léeg ngi Sénégal yoo xam ne dem di xaar julli julli tabaski foofu seen yoon ci julli googu waruñu julli ku dem màkk waru julli tabaski ndax lan gan nga ñu julli tabaski donc ñi bëri na ñoom ñoo fa dëkk ñoo mais yow mii julli inuf ndax ñëw nekkoo ci tabaski da nga ñëw jaamu yàlla tawaaf ifaada wër kaaba gi mooy sa farata baa nga julli tabaski mhm. te ñu bëri xamuñu ko mhm. te yooyu bis bu tabaski ñëw dinaa ci waxtaan mhm. waaw parce que tabaski léeg-léeg nit na ma waaw Oustaz Diaga man de yow yóbbu jox naa bii màkka mu demal ma màkka man ko est-ce que ma sa dem mu na déedéet man ko ajul ajalu la de boppam la ajal ndax yent bi ne woon na nit mun ta ajal nit te ajut. dëgg la ngay aj ba noppi door a mën a ajal keneen. Ah, dafa am ko doon wër kaaba gi. nan la bay ko suburuma mbokkam lay waxal bi maanaam mi ngi wër di ñaanal ki ko ki ko indi ne ko a subar ba ana la mu ne ko sama axi sama dëkk sama dëkk la nekk yent bi ne ko yow xal xajata ndax woor nga mu ko la mu ne ko déedéet. mu ne ko xaj ani nafsaka suma subruma mun a ajali te ajoo kon moom am amul aj de yow yaa am aj kon ñëpp ñu jël xaas Sénégal Sénégal gi na diw dem la màkk demul la màkk na demoon ba pare man laa demal et puis est-ce que mën naa dem est-ce mën naa dem waaw ndax euh, Yacine Mbuub nee na <laughs> nga taxaw ci Samba Alaar yi oustaz fi nga nekk am na solo waaye xolal <laughs> Euh, il faut ñu dem ci sommaire bi. Mhm. donte Ndiogou Gueye. waaw ah, leeral na leeral na question am nee na ndax euh, lislaam mus naa am euh, défaite maanaam ci xeex ak xare yi nga xamante ne dañ ci doon dem. waaw Uhud defet la. Mm. te lépp ñàkk digal la. yent bi nee na nangam amaguma digal ñu ne dañuy dem far fas moo tax gis nga fuur fuglu. Mm. gis nga ndaw. Mm-hmm. day am sago. d'accord bi maanaam ndaw boo déggee ne am sago mooy que ne du dara am rek nga jóg ne damay xeexee déedéet il faut arrêter ça yent bi wax na ko nee laa tatamannaw bu leen mébét bu leen am intention al liqaa dajeeg ki la ëpp doole. Mhm. surtout état wala mbër wala agresseur mun a xel ngay dem ak moom bu ñu leen diw ni jóg leen dem mun a teey leen fan la jëm ak lu ñu fa fekke mun ne laa mu leen am intention al liqaa dajeeg aduwin seen bor waaye nag fa iza laqitumuhu xoolal moom nag bu la état agressé mun a ripostel mhm. al amiru jairun mun a xayru min fitnatin buur bu juum. mu ne buur bu juum moo gën réew mu juum mu ne buur bu juumee ñàkkul sage boo xam ne bii rus nañ ko mu jóg dem ba pale ba wax moom mu déglu ko est-ce que dana ko déglu bu ko déglu nag ëllëg lu xew moom la. Mm-hmm. kon li ngay wax ni dëgg la xare ba daal li xare Uhud li tax ñu am échec yent bi dafa ne comme amagum ndigal bàyyi ko ci yàlla xale ne ko noonu faw ñu noom ñooy attaqué nañu nañu dem mais bañ demee mais Ursulaay bi mu ñëwee ba ci ba Uhud dafa ko situation xaw a doy mu ne ko naa def réserve. na yéen saaba yi yëg leen ci kaw montagne bi mu tudd jabalu ay nay ni lu tax mu ne ay nay ni format ñaari bët la am. Mm-hmm. ngeen ngeen am réserve foofu. nekk ci biir jur ñi am na épo am na hypocrite bu dem na yéeféer yi yonent bi am na réserve ñoo tamit am réserve muy Xaalid ibn Walid ba ñuy ba jur ñi gagné commencement premier combat wàcc di sodoo alal yàq gànjaay yàq takkaay yi saytaane ne wàcc leen yéen ngi sodoo alaat yi ngeen toog fi ba ñu wàccee Xaalid wër leen doom a leen ñëw rey leen. échec la woon. Mhm. dañ ñàkk am gàcce nu ko waral ñàkk dégg ndigal kon kilifa dafa baax. Mhm. d'accord am kilifa ma am na waay ne xam ñàkk kilifa seetaan di sa kilifa. bi maanaa islam daal foofu la amoon échec ak xandaq am na xare boo xam no xandaq ñu a gagné. Mhm. daal bi ëpp solo moo daal mooy xeex bi xam ne bi dañ ci am ex aequo te xeex bi di ko waral mooy xare Badar moo am victoire jigéen moo tax Uhud am muy Hinda. ndax dañu rey jabaram dañu rey càmmiñam ak ak papaam. Mhm. mu ne kon naa vengeance rey daanal islam. Mhm. daan na rasulaay xaaruma maa ngi sa kaw. Mhm. boobu nag préparé wuñu affaire bi. li lay olof naan ko loolu loolu bett man la. kon lu ne dañ koy waajal. Oustaz dafa mel ni internet yi mami dafa mel ni dañoo bëgg ñu continuer question yi waaye nag. ah mais nag ah? télé ni muy doxee la. du dëgg. waaw loolu mais nag dañoo bëgg ñu yeggali eh, eh, waaye Bastine nee na. da bi ci say wax léegi nanga wax ni ndaw si eh, jëkkër ji mu du woon jullit mais kon kañ la lislaam ay jigéenu jullit am jëkkër bu dul jullit xam nga yéeféer ak yahut ak nasaraan du benn hmm. xam nga jullit jullit bu jigéen mën na see chrétien hmm. nasa jigéen nasa wala ku góor jullit mën na see chrétien man a géeg mën a seeg yahut mais bu njëkk yooyu amul woon ñi ngi ko réglementé ci après gis nga daana ko teg si ndaw si bii nee nañ sax moom yahut la uh-huh. nee nañ sax julli la bu saay-saay xam nga histoire dafa am ñaari deux versions uh-huh. boo xam ne bii bon dafa bon yi yenoon sax est que prek seen wut wala mu jullit boo xam ne bii ku sàggan la waaye li ñu mën doon moo tax bii yooyu amee nag la yàlla wàcc aaye réglementé yëg ne bu li amatee ni ngeen comporté woon nii. moo tax ñu ne jullit bu jullit bu góor bu ol jullit bu góor yal benn jullit bu góor mën naa takk juif yeexut mais du takk du takk yéefeer dégg bu góor mën a takk nasaraan chrétien waaye nag jullit bu góor mënut a takk yéefeer mm-hmm. ndax dafa wedd yàlla mm-hmm. te ku wedd yàlla doo jaamu yàlla waaye chrétien bi day jaamu yàlla mais bokku leen religion yahud bi gëm na yàlla mais bokku leen religion moo tax mun a takk leen ci yahud yi ak nasaraan yi waaye nasaraan yi moo leen gën a jege ni jege ci partenariat loo tax labbe bi tudd Muqawqis may yontu yàlla Muhammad soxna muy Mariyatu Iqibti Mariyatu mii bi muy ñëw ci Égypte jóge Égypte ñëw ci yonente bi Sayrina sërëm la àndoon Rasulullah jël sërëm bi may ko Xasan bun Shaabit mu am ci Abdurahman moom Mariyatu mii nag yonent bi jël ko soxna xam nga kan la ci Ibrahima maamam. moo dee bisu tabaski. kon après nag bi islam ñëwee nag kon nag bis ni ko tey. yéen ñi jigéen ñu seen jigéen julli nii buy nangu ku dul moom jël ko. ci yahut ci ci ci ci yeefeer yi. waaye yéen góor ñi yéen góor ñi. yéen jigéen ñi bu may seen doom yi jigéen may ko ku jullit est-ce que wax. waaw léegi lislaam nag moo xam nag nu nu ko nu ko tëralee ndax ñun li yonte bi yaa nga jàngat ci lañ yem. Mhm. sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf yaa Seydi eh, bu gàtt rek ah mami ñu ñu may leen 10 minutes mbay nee na may nañ leen 10 minutes. Mhm. ñu ñu ñu ñu yeggali question yi yow mhm. nga ni ban laaj ngay ngay dugal. waaw dafa am sama benn dafa am sama benn càmmiñ buy laaj mu ne ndax weeru koor. Euh, ay naar ñaari nit ñu bëggante mën na noo waxtaan maanaam yow nit di la di la bëgg di la la labat. xam ne ah, yow ah. coroom nga daal. Ah, ndax mën na la woo téléphone ngeen di waxtaan. waaw téléphone bi ngeen woor. wala ngeen di waxtaanee SMS ak yooyu ndax aayu. Euh, xam nga waxtaan wi du dara communication la mais bu leen ci sori. Hmm? bu leen ci sori. Mhm. waxtaan xam nga waxtaan. mu ngi mel ne tey ñaari bi ne ci ne woor ne ci biir bureau bi. Mm. di waxtaan. Mm-hmm. mais bi maanaam dëgg yow sa xel ngay maîtriser ci na yem ci waxtaan. dëgg la ma na ñoom ñaar mën waxtaan. même par whatsapp ni xoolante ni waxtaan. maanaam salaamaaleykum ay ay waay bëggante sax. waaw waaw naka koor gi baa sonn loo foofu ngeen mën a. non non non non man a waxee adduna waxee adduna parce que tamit attention euh, islam nag du diire joo xam ne agression la déedéet. islam nag dafa may nit ki li liberté. mais l'islam c'est l'amour sax. muy voilà muy xalaat di am ay coofeel am bëgg-bëgg mais dafa am limite. di féexal sa xol. ah féexal sa xol doo am limite. Mm-hmm. limite bi maanaam xurut xurut mooy frontière bu ko bu ko dépassé daal. Mm-hmm. maanaam nit ki waaw <laughs> ah, parce que léeg-léeg nga gis ñu ne an hmm, eh, am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne <laughs> ngaa la hmm. am na ñu def islam yu garaaw te ña nga te ña nga àjjana dëgg la waaw hmm. ah, waaw xam lu tax yàlla nee man eey eh, maa leen fi indi maay dóor ko ma neex maay baal ko ma neex ñi maa leen baal loo ci man parce que Seydi Hadji Malick yàlla nañu yàlla fayal ñu ko bu ma sànni wasif ci jàkk jàkk ja am na koo xam ne bii danaan soppiku bu ñu wasif dañuy tëgg sàkk di dóor ba taalibe yi mer ne waa alaaj maa bàyyi kii ñu ñu defar ko waay mhm. maa ngi gërëm sama xarit sama sëriñ euh, Moulay Si yàlla yàlla yokk ko jàmm mhm. amiin alaaj maa ne waaw yéen daal yéen yéen da leen sonal mu a mu a waaw ah mbiri yàlla kenn xam nu mel de mhm. yàlla est du leen soppi moom lam doon mu defal leen ko li ngeen doon li ngeen jom mu jox ko te ngeen maan ci moom nekkate baatu alaaji Malick bii yàlla barkeel na ko waa jooju mujj ne mujj ne notti ci macha allah ah, macha allah ah, mais c'est diine diine ji islam diine récupération la. Mm-hmm. du diine diine soxor mais xool ki ñëw ci jàkk yonent bi di fa saw. di toll jàkk si ne xam nga taxaw di saw gars yi bokk song bokk ko dóor yonent bi eh, bàyyi leen ko mu àggale xool état santé bàyyi leen ko mu àggale la wax ndax bu ngeen ko dojee man naa feebar. Mm-hmm. mu saw ba pare bay dem yonent ko kaay mu ñëw mu ne ko waaw loo jublu ci lii mun ne ko ci lu mel mun mu ne ko ah waaye fii place bu set la waay. Mm-hmm. kenn dafa def lii mu ne ko ah lu ma ci xam pour man mbedd la xool gën a ko tontoo mais non non foofu la niveau am toll. Mm-hmm. mu ne ko bu ëllëgee bul defati lu mel ni dégg nga. Mm-hmm. ndax ñun duñ dem seen place dafa def mel ni ndax duñu tooñ dégg nga jamal. Mm-hmm. waaye ci takk tubéem dem ba këram jabaram jox boolu ceeb mu mu bule mu bule bool bi. ndax la nekkati yoon bi ko dóor te ko. mu ne waaw jabar ne ko lu def nii ak ni nga ni nga bëggee lekk mu ko tey damaa dégg kàddu gox mosuma ko dégg. dégg ko ci nit ku yiw. bu ñëpp defe ne nii la mel nekk mel noonu. kenn gënu ko kii danaa xool li ko yàlla jox. ba mu ñëw ne rasulullaay lan mooy islam mun ko def lu baax bàyyi lu bon. dëgg la lekk lekk lew rek. te doo am ah. jàppale ci. Mm-hmm. mun ko ashadu laa ilaha mm-hmm. bi mu ko rasul mun ko takbiir mu tudd leen yàlla. ñëwoon ci biti na ah nekk te sunu waajee kat dugg nañu islam boo waajee demee neel benn yant bi rassemble ñëpp jàkk ji ne waaw xam ngeen waaj yi duggoon fi léegi ñu ne ko ah xam nañu ne waaj tuub na de mun a ah yéen ba muy sax bu ngeen ko dóora mu dee boo léegi ku dégg ci ci ci presse bi maa islam ni ne mel kon ñun ñiy waaraate nañu moytu di waaraate nii ba ragaloo nit ñi communication boobu pédagogie boobu la nit ñi amatut. Mm-hmm. yonent bi façon yu gën a garaaw récupéré na leen. Mm-hmm. ku dem ba récupéré agresseur mu nekk garde corps moom rasulullah. mu xëy na mu suuba wallaay dëgg la. tey nit dina ñëw rek nga commencé ko xool bët yoo xam ne da lay ragal. Mm-hmm. te moom ndeysaan dafa am ci yow yaakaar pour nga orienté ko. mais dootu dootu ko ñeme. Uh-huh. islam du diine kuy rejeté day récupéré. dëgg la salaam. Ah, mm-hmm. jërëjëf jërëjëf euh, waaw dafa mel. man nag bu ma kenn woo. bu la bu ma kenn woo téléphone. bàyyi leen ba ñu ndogu ba pare. war a ma kenn woo de. man parce que parce ngaa la man mënu ma contrôler sama ay wax. mën naa déborder à nga ne. Eh, eh, eh, xaaral mën def ay baaraam naa ma ay nii nii ma ngaa la. nga baal ma. Seynabou waaw xam nga sama gémmiñ gi mën na saaga uh-huh. man na yuuxu mën na ree sama gémmiñ gi mais dafa am lu ko maîtriser doose ko ba doo ko mën a génne hmm. mais lu tax loolu doo ko def hmm. salaamaaleykum wa rahmatulah man jeté mën naa génn minit bu ne te day yàqu koor moo tax bu ma kenn mais non maîtriser ko oh. téye ko téye ko rek Oustaz Oustaz man daal mineur laa donc mu ne man mineur laa man téléphone yi bu ma duggee kër ga fay na ah yow kii laaj na laaj gu ma ne oustaz kii nee na. Mm-hmm. lu lislaam wax ci yow oustaz jaaga nga woor ba weeru koor jot ba ngoon nga ndogu ba pare ñu tegal la ceebu jaga. ceebu kii yàlla na connexion ceebu lan jaga lekk rek. <laughs> nee na safaayu ceebu jaga. safaayu mu wuyoo sa tur originalité cafaak mbaxal ak duuteeg fondeeg euh, kii tuufe yëpp a baax. xam nga lu yow yàlla dala santoo nga def. bu ne libéré nag xamal sa bopp. Mm-hmm. mais bu ci ëppal. dëgg la dëgg la dëgg la. ba mu de sàngara ba mu de sàngara. ak loolee loolee mandiloo. moom bu ko jege macha moo tax ñuy tux. Mm-hmm. bu dee nag bu dee mënuñu ko baax te xam nga yoon rek tux. Mm-hmm. ak naan sàngara doo ko brusquement loo nit. da nga koy yedd par nang nang ba ni mu koy bàyyee. kon koo xam ne mënu ko ñàkk def mais dogul ba pare def ci tuuti. ndax ni nga diiraa mi nga toog defoo ko mais boo ko muñee bàyyi ko. ndeysaan oustaz internet yi nee na ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ci oyof gi ak tontu gi eh, am na solo lool lool lool lool waaye nag du ma leen du ma ku ko nëbb de yéen seetaan émission ak seen i questions yi la ngeen trop <laughs> dëgg ah. yaa ngi xuloo de waaw parce que <laughs> question yëpp a neex non non question yi neex na mais ma ci yu man moom mineur laa du dëgg man dama doon jottali te comme yegg na te oustaz tontu na alhamdulilahi rabbil alamin du dëgg amoo dara looy laaj borom ñaari soxna yi ci ci woor ah. bi sax noonu lañ ko a tuddee bu ci weeru koor. Eh. koor gi du ma liggéey. Eh, eh, xam nga kii jox na ma cadeau mais yow xam nga yow am nga cadeau yow. waa oustaz nee na téléphone bu am na cadeau waaye yow yow gisoo lii ko waaye yow.